dañ koy dañuy jël ci gëna gën a baax defe ko ni nga xamné ni leen nañ leen ko waxé yalla ñu suñu borom taxawu nak ñi ngi talal suñu loxo nak ginaaw lolu di ñaan suñu borom mi nga xamné moy borom dimbal te moy borom ak man amna lu nekk ci aduna sepp te jaaxal ñepp te kenn mënu ci dara ku dul mom mom momé nga xamné mo ci man dara nak yalla na fi yalla ko ci aduna sepp ña nga xamné yalla dogal na mu dal leen itam yalla suñu borom wëral yalla suñu borom gëna jox katan yalla borom gëna ci bopam